Salut les amis des sportifs, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous abonner, merci également Guy de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des information. Box sénégalais, fait pour les 14 régions du Sénégal, Rokoroha, di Gorgoha, di Ninglen, di Djadjofel. Ñu nekk également à l'hôpital et sécurité de février, yalla suñu borom fëgg seen bop ñu rek jamm, ñu nekk ci kasso yi ngeen xamné aussi erreur judiciaire génne ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delawaat leen seen i ñi ñu dëddu àdduna suñu borom xale laajana fi daw ci gars yi te yéexee on avance ensemble dans la machine sportive et le Baba Show l' en continu actualité ñu fa seen waxtane li nga xamné ne donc euh, ki di donc Nicolas Jackson ak entraîneur am donc euh, di ki nga xamné moy donc euh, aujourd'hui Pochettino ak aussi ki di donc Lamine Camara ak li nga xamné mom lañ ko daal jox muy benen raaya donc di sargal ñëpp nak ci nga xamné donc éliminatoire mondial 2026 wa Togo gën nañ seen liste hein, mais aussi ñi nga donc wa Mali ak Eric Chel génn na liste liste boo xam carrément je dis que équipe Mali équipe bu baax la li leen dese mental mais équipe bi ku ñu war moytu la ci coupe d'Afrique bi ñu jëm pendant ça également félicitations ak Hermo donc qui dit Ismaël Spilizar des mu daal di dougal bii bo xamné baxna ci mom baxna pour la confiance et aussi je pense que né dina ko permettre bu ñu équipe nationale mu ñu ak ben équipe bi l' essentiel nag mooy mu gëna a liggéey li nga xam ne nag mooy donc jàkkaarloo kan di dougal yenn ya cheikh yo xamné warul diko raté Aliou Cissé nag moom gars jamono ji nak néna tamit lii di coupe d'afrique bi dal ah, donc néna na heure bi koy joué muy ñaari waxtu ci ngor muy 2 heures donc néna waxtu boobu dal baxul et que amul ben médecin bo xamné di nga and ci joueur yi di jouer ci waxtu yoy non motax dal mom japp néna ni di wa CAF dal war nañ xoolaat bir yi ñuy def pendant temps également mom moy légui le patron du côté gauche de l'équipe nationale du Sénégal muy kii mooy Ismaël Jacobs en l'absence de Saliou Ciss et tout moom daal Ismaël Jacobs jamono ji imposé wu na ba nek patron équipe bi et je pense que c'est mérité pour le joueur sénégalais bi il est fier de porter les couleurs du Sénégal Qui nga également au cinéma donc kii di Nicolas Jackson moom nag Mauricio Pochettino wax na nee na na lu bari nee kérok keroog dugal na ñetti but contre ñi nga xamné moy donc sen adversaire de l'autre jour hein muy Tottenham mais waron dugal 6 buts nee nak jeune le bo xamné dafa wara améliorer ci yu bëri li gën tax nak mo wara a améliorer mo efficacité bi mais nee dal daal joueur la boo mi ngi progresser loolu dal wax nee dal mom euh, voilà mi ngi xaar lu ëpp ci li nga xamné mom la Nicolas Jackson di wane jamono ji ni ah, jëm ci aussi ki nga xamné moy donc Lamine Lamine Laftiat Camara bokk ci li nga xamné nak moy donc euh, ki ñu nominé gagné moom sax moo gagné li nga xam donc plus beau but du mois but exceptionnel contre Monaco donc tirant en central le la le la toll gars yi ñu koy waxee daal di dugal bi c'est extraordinaire Lamine Laftiat Camara bi nga xam ne mon moom le ëllëgu Sénégal bokk na ci ëllëgu Sénégal Inch'Allah, allah bi dañ ko ñaanal la ah suñu borom dafa ko ci cat et tout parce qu'il est en train de faire des choses exceptionnelles je pense que aujourd'hui jeune du Sénégal ñu ngi commencé nak nak jël pouvoir bi du côté de la sélection bu ñu gëné jox seen chance bokku na ci kenn na donc qui di donc euh, Pape Matar Diaye Boy Thiès man football nga xam actuellement gars yi aussi il est en forme il est en feu saison bi moom machallah machallah la allah laf cat laf bu ko dara jot yàlla ko parce que voilà on veut voir ces joueurs là à la CAN donc nañ leen ñaanal suñu borom musaleen mais aussi bokku na ci nga xam ne yàkkamte nañ Pape Alassane Gueye delu ci équipe nationale du Sénégal ba jël flanc gauche bu milieu de terrain bi wow gars imagine milieu de terrain boo xam ne gars yi Nampalis euh, Lamine Camara wala qui Pape Matar sar ak

utiliser utiliser ko mais aussi mom dafa en manque de confiance gannaaw loolu yëpp mom dafa en manque de confiance et ñu ngi ñaan mu retrouver Idrissa Gana qui ne joue presque plus du côté de Everton moom it daal ndànk-ndànk mi ngi à euh, place au niveau de l'équipe nationale du Sénégal en tout cas concurrence mi je pense que concurrence dafa baax ci lépp d'Adi euh, Guiss, mais aussi ñaar ñi fi le patron les patrons de la défense de l'équipe nationale du Sénégal Mouy Youssouf Kibok, euh, bokk hein, donc Kalidou Koulibaly ak Moussa Niakhaté hein, Moussa Diakhaté Niakhaté nga xam ne dafa ñëw d'Adi relégué Abdou Diallo au banc et je pense que Abdou Diallo c'est un joueur exceptionnel mais aussi Niakhaté fi mu mi ngi def ay et je pense que les ñi def ci Moussa Niakhaté Abdou Diallo war nañ ko def ci pour concurrence bi gën a neex gëna tar ah ñu wax noonu ah dina neex dina yëngu li gaay di wax ah mu Sénégal woté na donc gaay loolu lañ wara a jëmmal ah, voilà jox ko tamit nga xam mooy gëdd ki nag di Nampalys Mendy aussi le fait que mo am li nga xam moy donc équipe di enchaîner match yi baxna ci mom baxna ci équipe nationale la confiance il la retrouve de même que ñom Pathé Ismaïla Ciss aussi ñi nga xam ne ñi ngi retrouver sa confiance loolu la ñaan au niveau de l'équipe nationale du Sénégal pour équipe bu performante war mëna jouer Coupe d'Afrique bi relever le défi gaay yi ah, donc li mo nekkoon information ñu bëggono a ah, c'est toujours plaisir de vous servir. Wayland de like, elle de abonné. On avance ensemble dans la magie des e-Sport TV. Ya, game,